naaw raay mi ngi tudd Mamadou Lamine Diawo ñi ngi ko jàpp ci polisu ah jannatu maxwa fële ca Touba nuy màggal gi lañ ko jàpp fële ca Touba ma nga Touba ba tey ba tey nii may waxe yéen ma nga polisu Touba parce que day xaar transfert bi koy indi Dakar day xaar ñu décider transfer bi kañ lañ ko war a transférer Dakar. mais ba tey nii mi ngi jannatu maxwa fekk leen ko jannatu wax maa ne ko ràjj benn photo yónnee ko kàppu aadama borom réew mi léegi nag merci beaucoup le sniper léegi nag gars léegi nag li ma bëgg mooy photo Mamadou Lamine jaawo di Modou dëkk ginnaaw raay ray Aziz Dabala ray Waly moom laa soxla photom pour afficher ko ci kanamu sénégalais yi ñoo xam ne reykat baa ngi nii bu paree dama bëgg a afficher xarit bi nekkoon complexe bi mi nga xam ne ban ko reyee ba pare ci moom lan dem nan ko rey na Aziz rey nan Waly mu ànd ak moom dem màggali xarit boobu dama ko bëgg a afficher xarit bi mën na doon sax banam casquette bi eh mais tamit mën na doon Nabou Leye mais tamit mën na doon keneen ak keneen ndax Nabou ba nu reyee Abdou Aziz Dabala ba ma duggee ci biir takkaluma ko de ba ma duggee ci biir xam nga lan la bu njëkk a wax wuy sama ndey ay waay lu tax nga def lii lu tax nga bàyyi ba ma dem nga doog a def lii Aziz lii la réagir ba nu ubbee fekk abdu Aziz Adabala mu dee ba tey man duma ma taxal kenn dama ne complexe sa xarit bi nan wax kan la kan lañ ko wax kan lañu ko wax man du ma taxal kenn waaw xam nga Sénégal bu dara xewee dana profité ah dama wax na moo taqal diw danga accusé diw awma ku may accusé ci ko yàlla sàkk rey nit dafa doy waar kenn du ko taqal doomu aadama mais ñun tamit suñuy analyse la ñu am di ko joxe na bu dee moo takk añ bi moo yóbbu hôpital ñoo nekkandoo woon mais yoon la ma ne na ko police yi téye na police yi téye ñépp ñu ci takk ci samde bi ba dimanche bi ba enquête bi leer lii da laa wax bu enquête bi leeree nag ñu bàyyi leen xam ne defuñu dara mais nan ngay fréquenté rek nit ku dee nga ne yow duñ la téye wala duñ la jàpp wala duñ ñaaw njot mun ta ne yéen a nekkoon yaa yóbbu hôpital yaa togg yaa def lii te képp koy wax ci magam yeeg rakkam yi rek na boo ma woo na boo ne ma ñëwal na boo dajji bunt bi na boo ne ma ubbil fii na boo ne ma ubbil faa na boo ne ma nële ñoom rek dañuy taqal na bu lay waxuma laa keneen ak keneen kenn taqalu fi kenn dan ne na police jàpp def seen liggéey ba ki rey feeñ jërëjëf gaa yi ci tàppataas yi jërë ngeen jëf ci tàppataas yeeg ah, ngeen jëf waaye waaw xaaral nag ma taal tuuti kilim faaw ma taal clim di kaa bi dafa ànd ak ñaq laa maa ngi bëgg a dee ndeke man ci tàngoor bi laa doon laay fi sans clim clim da taal nii ah ci la bokk di ah. ah kay ma taal clim tuuti tàngoor bi laa nekkoon dama nee nag kaa bi dama cee sonn de. man ma naanuma màggalu Tuubaa ku ma dajal nga ne ma waaye yow foo tollu ci affaire yi man man lii rek laa bëggoon damaa sonnoon ci bi man gis naa ay yow waali de gis naa li nga wax ci man Bambey te lu la woon kaabee bee taxoon su ma paree dinaa ñëw ci yow bu dee mën nga naan ni du nit ku bon laa te ma jàppale la ba ngay tollu say digg kii jàppale la waali ñépp di la xas ma jàppale la indi la sama live ñaanal la xaalis ketal la baax na maa ngi vocal yu nga yàqee Bass Thioung ak di wax ci moom lu ñaaw ak yeneen artistes yi waaw naan dañ la doon tëddeeg nangam nangam vocal yëpp maa ngi moom maa ngi ñëw bàyyil ba liy jàll rek bàyyil ba liy jàll nga xam ne maa la doon bandi léegi baal ba liy jàll rek incha allahu rabbi xam nga maay wax a yow xam nga yàgg na noo wax maay wax ak yow baax na léegi acca yi ñu tàppatee écran bi mais léegi nag gars yi am na lu leeragul ci cas bi maanaam yi ñoom dimanche lañ leen rey rendi lañ leen rey samedi lañ leen rey ban jour lañ leen rey loolu tamit faaw ñu xam quoi jour bi faaw ñu xam jour bi allo waaw maa ngi dégg waaw waaw waaw maa ngi live ñëwal seetaan nga naan li ni wax dëgg la kuy se kuy live ah, live aadama xanaa àdduna baa ngi fi nga bay laaj ndax li ni wax dëgg la information bu ne mën ngeen ni xaar kay maa ngi live ñëpp a ngi fi ngay wooti waaw maa ngi live ñëwal seetaan nga naan li ni wax dëgg la kuy se kuy live ah, live fu aadama xanaa àdduna baa ngi fi nga bay laaj ndax li ni wax dëgg la information bu ne mën ngeen di xaar kay maa ngi live ñëpp a ngi fi ngay wooti doon Diego waaw doon Diego maa ngi lay déglu waaw waaw ok baax na Don Diego moom daa dof yaa ngi en direct ba léegi ma ne waaw mu ne ma waaw dugal ma après maa ngi Angleterre ba léegi nii ñibbiwu ma lu suñu yoon sa Angleterre nekkal Pombiteer ñun ñu nekk Europe wër àdduna bi yëpp ngay doog a dem Angleterre di ma woo ma maa ngi Angleterre dugal ma lu ma lay dugal ci ko dee loo ci wax wala da ngaa bëgg publicité nit ñi ne yaa ngi Angleterre doon jéego yaa ñàkk fayda waay ba nga woowaat ma rek naan ma maa ngi Angleterre nekkal pombiteer lu sama yoon man doo dugg de bu soobee yàlla maa ngi Angleterre gars yi ñu tàppate écran bi mu yéeg mille personnes barki rasulullahi du ngeen ay nit de billaahi lii nag mooy metti gars yi lii tax Sénégal yi naan xaw ma aadama nun ko mën a dégloo xaw ma aadama nangam aadama kay moom nit ñi dañ koy déglu muy wax ñu koy may importance may sénégalais man ay congolais seetaanul ma de ni ma yàlla def bàyyi leen ma noonu 2019 ba tey maa ko téye réew mi nii 2019 laa commencé xew pour war ne Adama Boy da ngeen ko bàyyi noonu da ngeen sonn de. 2019 jamonoy corona ba tey Sénégal ak may topp deewuma woppuma kenn mënul ci man dara te kenn mënu maa fay. 2019 ba tey maa ngi téye réew mi nii. man bu may live ku live kenn du la wuyu bu ma commencé képp bu ma commencé képp ku live kenn du la faale bu ma coupé nag mën ngaa fortaatu ci li Adama di wax wala nga wax ci ay débat mais tant que boos commencé na maanaam réew mi ma bëggal seen bopp ci noonu merci beaucoup réew mi tant que Adama commencé wul ñoom du sawarul daal sawarul information yi gis nga ba mu commencé daw seen web di wax keneen a keneen barki Serigne Babacar Sy dañ ne boos rek la ñuy xaar kàppoo kese. tant que waxul moom mënuñu koo gëm tant que Adama waxul du ma ko gëm. mën a eggale ah, ah enquête bi nag des na lu bëri de des na lu bari parce que heure exacte bi war nañ koo xam war na ñoo xam jour exacte bi xam nga waa enquête bi faaw mu leer waaw waaw da ngay day lan deme bi da ngeen koy bind. maanaam la nangam da nangam nangam lanu rey nangam nangam nii la demee nii la demee heure tel tel tel comme ni ko tubaab yi di defee faaw ñu doon ay professionnel ci Sénégal. liggéey bi des na de liggéey bi des na ay jàmbaar ngeen nag brigade de recherche police scientifique bi ay jàmbaar nanu bu leen kenn xalab wala nga leen di wax dara parce que ay ndaanaan nanu def nañ seen liggéey fexe nañ ba jàpp Mamadou Lamine Diawo ca Touba kon ay professionnel lanu ay jàmbaar lanu mën nañ seen liggéey waaw continé leen nañ leen di ñaax ngeen continuer ci cas bi mu gën a yaatu waaw Vous êtes des jàmbaar hein vous êtes des jàmbaar man je suis très content de vous la police sénégalaise hein je suis très content hein le commissaire le directeur le le le le le le le yéen ñëpp daal kontaan naa je suis très fier de la police ah. police au Sénégal on fait un bon travail le Sénégal c'est la police plus plus plus plus fort de l'Afrique amul keneen kenn du yéen sama takk der yi tey moom damaa kontaan ci yéen moom léegi nag na liggéey bi continuer waaw na liggéey bi dem waaw continuer leen enquête yi na gën a xóot parce que xanaa xamoo gis nga enquête bi bu yaatoo ci kii ci Mamadou Lamine Diawo dinañ jàppaat yeneen i personnes yoo xam ne ay complice lan du kenn kese de parce que lii dañ koo tëgg bu yàgg lu nu programme la nekku na waa ji dafa ñëw rek ñaan ko xaalis jam ko dañu koo programmer ak ay xaritam yàgg na gis nga bu police toppee liggéeyam ñeneen la di jàppaat xam nga benn coppéyam la ne wax nag ko dinañ jàppaat ñeneen tëgg bu yàgg la lii lii du lu bees ñëw nii rek jam nit nii rek du noonu enquête bi dafa des des na lu bari enquête bi des na lu bari gars yi ñi dëkk Pikine photo bi lay xaar de waaye kii fu muy woote moom alo alo alo